waa léegi euh, kii nag ndeysaan benn janax la woon may la ma defarwaat sax yaa ma ni léebal nag kii nag benn janax la woon ndeysaan janax gi daa dugg ci benn pharmacie waaji daal mu jël pharmacie bi équipé ko ci ay bagage xam yu baax affaire daal heure bu tëjee rek ci pharmacie bi janax gi génn gi jàpp comprimé yëpp yëy leen waa ji bu ibbee dootul gisati benn comprimé mu ni waaye yéen man man comprimé man bu ñu waxee sax siro ma ni grave mais compliqué kan kan moo koy yëy gi moo koy yëy waa ji xaaral mu fiir benn jour janax gi préparé benn piège bu garaaw kii buy génn tey ma koy jàpp waa ji del benn samedi rek tëj kii bi rek bàyyi ko noonu janax gi bi mu ñëwee faaleetul comprimé yi sirop yëpp la jël naan ko sirop yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp la jël naan ko waaye ñu non déedéet tafal naa ki lii mënul nekk quoi kii sama comprimé yi jeexagul muñ day naan sama siro yi waaye ñu xaaral waaj dem jël wuti kolu janax yooyu noonu ñuy jaay Sandaga waaj moom la dem jël bàyyi ba 14h rek tekk foofu noonu ci biir janax gi loolu mooy heure am janax gi daal génn rek mu ni xaaral tey moom waaj gën a rechargé waat médicament yi saa yi dafa ñëw rek di dem rek gis nga génn gi la saa yi njëkk mbaq rek jàpp ko waa ji laaj leen ma lu ko def waajee jàpp janax gi bàyyi ba 14h naaj bu tàng bi. waa ji teg ko jam ñaaju di ko diri dakaar waa ji teg janax gi di ko diri ci tali bi janax gi naa wuyaayoo yaa ngi may boros wuyaayoo yaa ngi may boros janax gi yaram gi di xool lekk ci suuf waa ji di diri waa ji di diri waa ji di diri waa ji ñëw ba Rufisque rek. waa ji ni ko may ma ma ñëw waa ji xëcc jaasi bi rek génnee bii moo gën a gaaw rek janax gi tëb diri ma diri ma <laughs> ma ne ko dootoo ko defati de. <laughs>